te mooy magum Serigne Massamba Mbacke te mooy Serigne bu mag bi fii fi Mbacke magum Serigne ma Mbacke te mooy Serigne bu mag bi fii fi Mbacke te mooy wëroon ba gis ko boole ruwaam nga ak jëmmam jébbal ko te mooy que Cheikh noone caama jëy sa ñu xuus ci géej gii caama dag sa ñu ñëw gabon ñëw fi ñu naa maayamba te tiiwu koy ñëw gabon ñëw fii ñu naa maayamba te tiiwu koy durus di way yeneen ba ñu ñëw gabon ñëw fi ñu naa maayamba te tiiwu koy durus di way yeneen ba ñu wër ba sonn jaaxle ngir fexeel ko ñu far ko jël delloo si fee siñal ko boobee la way mun a wiru suduuri la daa manaasili wa inda duuri nasamoo xaddimoo ma deg sa sin ba dal ana min jëy sa li jeg sa moo tax sëriñ daara ba seex moor siise moo jot ndigal sotti ko fii xirtaas def dafa salaam jamiy siñee ca booba jibbal ko seex fëllu mu bég ca booba moo tax ba seex fëllu foto jumaa ji def ca foto sëriñ bi ak jumaa ji def ca signaturam di aaye njaay mi xam ne li liy njëgam amul ci réew mi am na ñu naa sab un minal laxwaa mi wa sab un asxori kasalayaa mi waaye ku bëgg xam luy coono bi ci téere kooka na wut mun naa wéru su ko yëree ba jëy sa li jeg sa sin coono jeex mu teg ca ama deg sa sin xar baaxi Seex Bamba ci téere laaj ko géej gi mbaa nga laaj ko jéer yi salaatu rabbina ala muxtaar yi wa alihi wa sahbihi al axyaar yi ilaa ji ngoola jiita waa ñaari Mustafa yi bi lu ma leen digoon naa moom laay wax te ci gën a gàtt Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee